mbokki jullit yi bari nay njuumte yoo xam ne mi ngi am ci société bi bu la neexee nga de ci société yi sax jëm ci wàllu yar ndaw ci sunu daara yi nga xam ne sun dee waxtaan sun waxtaanu biir noonu ci sun bopp di ko waxtaan ak sunu réew ak sunuy bokk dañuy nangu ne am na njoomte yuy am yoo xam ne ñépp ci participer waajuri ndongo yi ña nga ca biir jàngalekat yi ñu nga ca biir état bi mu nga ca biir njuumte yooyu nga xam ne dafa jublu nag jëm ci wàllu yar ndaw daf cee bokk ragal loo ndaw li daara ak njàngum alxuraan ragal googu ñépp ci participer kenn ku nekk gis na xeex bu yàgg boo xam ne dañ koy xeex daara ak lu ci jëm moo xam ci ay film lañ koy jaarale moo xam ci anam guñ koy jaarale ba ndaw li ci jëm jëmmi boppam day ragal daara bàyyi ay ndaw yoo xam ne tànki neen lañ yor yor ay pot di dox te loolu mu wóor ne état mën na ko faa jële waaye kenn jëlewu ko fa ña nekk ci kër ga yow bëgg sa doom bëgg daara bu xëyee teg bëtam ci lool yi nga ne ko fu mel noonu nga jëm kooku mënu koo bëgg yow waajur wi sa xale bi nekk ci kër gi doon gone saa bu defee lu dul noona nga ne ko yow de lee ñu yóbbu la daara yaa ngi koy ragal loo daara yaa ngi koy xupp ne ko daara béréb la boo xam ne jàmm nekku kon xale bu ndaw bi nekk ci biir kër gi jëmbat nañ ci moom loo xam ne bëggul daara te gis na ne moroomam mii mu tollool moom mi xëy di dem ci daara ja moo xam ma nga yor pot di yalwaan wala yoru ko waaye ragaloon nañ ko ba mu nga jëm foo xam ne aw fitam day fér-féri buy dem day jooy day tëdd di xalanku ñi koy fab di yóbbu am na jeneen moroomam joo xam ne bu xëyee bañ sang ko ba mu set defar ko wékkal ko ab saagam buy dem day cëppi-cëppi di ree kon ragalloo nañ ko lii ñemeloo ko lële waaye ba loolu amee it foofa nun ñiy jàngale ci suñ jëm bi ba participer nañ ca loola ndax kat su fekkee nóor nañ ne am nay sanction yoo xam ne dañ ko doon def bu yàgg ci daara nu jàpp ne loola daa bokk ci njàngum alxuraan mënatu ca jóge ne faw ñu di ko def parce que alxuraan nii lañ koy jànge su boobaa noo ngi participer noonu itam ci bañ loo xale yi daara dañuy wax ne mëne su ko bañ a jéng ndax day daw waaye jéng bi du saafara si saafara si mooy lu tax muy daw fan la ñuy jaar ba duutu daw fan la ñuy jaar ba mu bëgg daara ji ba mu demoon ak bër këri waajuram day yàkkamte dellusiwaat ci daara ji loola lañ soxla comme saafara waaye jéng du mooy saafara si bépp xale boo xam ne dañ koo teg lu mu àttanut faw pexeem mooy nan lay def ba mucc ci lii amul pexe ndax mënut a jaamaarloo di xeex amul doole munte xuloo amuti pexe ay waajuram ñoo ko fi indi lu ko dal ñoo ko ko teg kon lan la man mooy su gisee fu mu jaar daw jaar fa daw su dawee sax du dellu ci ay waajuram ndax nañ su fa delloo ñu delloo siwaat ko fii kon foñeel googu ak mbañ googu nga xam ne moom la xayal bi bañ daara ji du caagi ni njàng mi kese moo metti waaye niñ koy jàngale moo metti loola lañ war a wëlbatiku seetaat ko adduna bépp ñu ngi jàng alxuraan di ko mokkal adduna ñu ngi jàng alxuraan di ko mokkal imaam yi ngeen di dégg yépp ñuy jàng ci adduna bi kenn ku nekk di jéem a mel ne ñoom fuñ ne cëpp mbooloo mi daja di leen teeru amu ci kenn koo xam ne dañ laa jéng wala ñu teg la xeeti toroxal yoo xam ne dañ la koy teg tax nga mokkal alxuraan nit ñaa ngi koy jàng di ko mokkal te jaaruñu ci lu mel noonu loolu faaw nu xam ko nag noonu ci suñ biir sun réew mii ay daaraange fi yoo xam ne ñu ngi jàngale alxuraan te yeewuñu kenn jénguñu kenn doo réewuñu ñu ngi dem bay jël ay coupe ci àdduna bi di ca raw te kenn defu leen lu mel noonu kon li ma ta xam mooy metti metti yooyu ñëpp di mettit lu du lënkaloo lënkaloowul ak alxuraan lënkaloowul ak alxuraan niñ mën a jànge yeneen xam-xam yi di ko mokkal te tegul nit ñi benn peen bu metti noonu lañ mën a jànge alxuraan di ko mokkal te duñ leen teg yenn mettit yi li am solo mooy soppi aw doxaliin lu munta ñàkk la bokk na ci <clears throat> li xew mooy tar yu metti yooyu yàlla sax nee na yow yonent bi fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fasdan galiza alqalbi lan faddu min xawlik nee na ko yow mii ak li ngay baax baax de yonent bi su fekkoon ne dangaa doon ko tar di jaamaarloog nit ñi di leen wax wax ju metti kon ba tey ñii nga gis ci sa kanam ñëpp foo génne ñi gaaw dajaloo ñoom ñëpp tasaaroo nañ ba dem seen yoon su fekkee mag ñi ku taral ci ñoom dañu lay daw kon ndaw ñi itam taxu ñuy wax dañ lay daw dem seen yoon te jëli leen tëj leen wala nga jéng leen loola du saafara bokk na it ci njuumte yi am nga xam ne responsabilité am ñëpp la mooy dafa am ñaaw njort gu dox diggante ñi nga xam ne ñoo yore liggéeyub alxuraan ak ñi nga xam ne ñoo yore état loolu suñ ko nangoo ak suñ ko nanguwul kenn ku ne dangaa ngaa ñaaw njort ci sa moroom kii dafa jàpp ne kële kàddu gu mu wax jëmale ko ci alxuraan la ko tax a jóg mooy xeex alxuraan ak def ay pexe ngir jële fi lislaam moo xam nag yan moo dajaloo ci xelam yoo xam ne kële doon na ko def moo ñam doon doon ba tax moom mi mu wëlbati ko jàpp ne jéego bu mu def jëm ci alxuraan day jéem a def la ña ko jiitu woon di def pour faagaagal alxuraan ak jële fi diini lislaam kii lii moo nekk ci am xelam kële it li nekk ci am xelam mooy dafa am lu ñu tudde loi yoo xam ne dafa nekk ci am réew képp ku fa nekk nekk citoyen yi ci réew moomee luwaa yi dafa war a tege ci sa kaw keneen ka ca des ne loi yooyu man xawma lu mu doon sax faf te bañ koy tërit kenn tàgguwuma ànduma woon itam ci ña ko doon tër kon lii dafa doon problème bu dox diggante ñii ak ñii ngir saafara ko nag ba ñu wóoloonte ndax mënuñoo tàggoo faw ñi nga xam ne ñoo yore daara di jàngale alxuraan wala ñuy jàngale leneen mënuñoo ñàkk état ci jëmmi boppam ñëw jàpp ci liggéey boobu ñu bokk teg ko ci aw yoon mënta ñàkk état it wërta xool askan wi ne ñaari xaaj la am na ci askan woo xam ne lii lañuy jàng ñoo ñu laa àndal am ci askan woo xam ne lee la ñuy jàng ñoom samay noon lañ déedéet loolu waru ci am ñépp doomi doomi askan wi lañ ñépp waa Sénégal lañ kenn ku ci nekk am nga droit tànn li nga bëgg a jàng di ko jàng su ko defee impôt yi nga xam ne ci nit ñi lañ koy jëlee di ko jëlee ci jullit yi di ko jëlee ci ñeneen ginnaaw ña ngi cay taxaw ay école di ca jàngal ay xale ñu set wecc di jàng njàng mu normal ñii ñu jàngal leen njàng mu mel noonu mu normal te ñi nga xam ne ñoo yore daara yooyu ñoomit nag ñu organiser wu ba képp ku mënta jàngale ñu génne sa loxo ci jàngale parce que bari ñu dugg ci biir ñu di leen jàppe ay jàngalekat te fekk ñooñu du ñuy jàngalekat warees naa mën a organiser suñu bopp ba ku ca bokkul ñu xam ne kii bokku ca su ko defee nag ñu nangu nag organiser wu nun itam lu gàtt-gàtt teg ay luwaa yoo xam ne fédération bi walla ñu mën a doon ci kuréeli alxuraan yi war nañ koo mën a teg yoo xam ne dañuy xam ne kuy yar xale war nañoo jaar ak moom fii bu dee ku jar a tàggat war nañ koo tàggat bu dee ku jaar ñu xamal ko nu ñuy jàngale jaaru nañu xamal ko ko ndax jaar ci daara rek kat jàng ba mokkal alxuraan taxul nga xam nooy jàngalee alxuraan li li fa gën a jege mooy nañ ma jàngale woon rek noonu lay jàngalee su fekkee dañ la doon dóor da ngay dóore su dee dañ laa tëjoon da ngay tëje su dee dañ laa jéngoon nga ne jéngal mooy yoon wi su fekkee am na nag yoon yoo xam ne mënees na caa jaar ba jàngal xale bi ba mu àgg fi mu jëmoon su boobaa dañuy xam ne lale ay moyens yu ñu doon jëfandikoo la waaye nekkul woon ay objectif wasila waaye du gaaya su jubluwaay dëgg-dëgg mooy lan mooy xale bi na man alxuraan su boobaa nag bu amee moyens yoo xam ne yu yomb yu waree sa mën a jaar ba mokkal xale bi mokkal alxuraan te du jaar ci metti metti yooyu nu àndana nun ñëpp jaar ca dimbalanteeg sun état ak sun ñëpp ñu mën koo defar ba lépp tegu ci aw yoon faw waxtaan woowu mënta ñàkk ngir saafara mën a judd yow jàngalekat bi daal xamal ne jàngalekat ak yarkat bi nga xam ne li ko taxoon a jóg def na ko mooy koo xam ne mboolem coonoom bépp dana ko def ci jàngale waaye dana jubloo yar ndaw ñi moo xam ay góor lañ wala ay jigéen ci def ci ñoom responsabilité def ci ñoom ñu am jom def ci ñoom itam xam-xam waaye ci biir loolu ñu yar leen ci ñu doon ñoo xam ne ñu seeni xol ubbiku lañ ñu lewet lañ ñoo xam ne dañuy bëgg doomu aadama yi ñu dundandool bëgg seeni jàngalekat bëgg seeni moroom nangoo participer ci lépp loo xam ne lu am njariñ la di daw lépp loo xam ne lu lor la yëgal leen ne dafa am lu ñuy tudd réew am lu ñuy tudd diine yaar yooyu yépp dañ leen a war a tabax te yow mii li ngay tuuti tuuti ëllëg yow li ñuy séentu nga participer ci ñi tabax diine ji di tabax réew mi su ko defee ci biir loolu yaa ngi tabax ay briques yoo xam ne suñ màggee danañ participer ci seen diine na mu gën a rafete waaye danañ participer ci seen àdduna itam na mu gën a rafete